ayca ami internet média Sénégal nuyu nañ leen ko si ne si ak santam tey nag ñu ngi fii nga xamante ne nii mooy reset si bërëbu ki nga xam ne mooy Nalla Trinité Nalla trité nag buñ ko déggee dootuñu ko. expliquer kenn ndax ñu bëri xam nañ ko fii si Médina muy def liggéey bu sol am solo yar entreprise bu mag fii si Riset bi muy trité bi jël ay jeunes yu bari nag dugal leen si entreprise bi di leen liggéeyloo liggéey bu am solo moom nag tey moo waral woote bi te woote bi nag du ñu def lenn lu dul avant tout ñu bàyyi ko mu présenté wu ñu door mën a woyal li nga xamante ne ni mooy waxtaan bi ay ca naa la dégg leen. salaamaaleykum waa Média TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar ak képp ku ñuy seetaan. li waraloon woote bi nag euh, dafa am suñu benn pàpp ñu koy wax Youssou Ndour li waral ma woo leen sax maanaam day référence muy koo xam ne ni euh, dafa am lu ma gëm ma gis ko ci moom muy liggéey dafa jël liggéey def ko favori moo tax ma woo leen nii pour ngeen jël ma ma wax ci moom ñu lancé ko ñu xam ni moom favori rek la def euh, liggéey favori rek la def liggéey waaw mu woowoon ñu nag ci la 5 bi wax ak ñun àdduna bi yëpp jot si mu defal ñu teraanga yoo xam ne nii teraanga yu rëy la enveloppe bàyyi nii yàgg naa dégg ni nag buggul loolu waaye man il faut ma def loolu ndax moom it ni ñu woowee pour jël exemple ci ñun moom it exemple la ci àdduna bi looloo tax ma woo leen pour wax leen ni ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko wax merci papa Youssou Ndour merci papa yu Ndour ayca kàddu yi am na solo mais ñu ñëw un par rek parce que tey gis nañ nga yor ay jeunes ñuy liggéey yow mm-hmm. tey sa digganteek ndaw ñi. waaw sama digganteeg ndaw ñi mooy li ma leen yàgg di wax chaque jour mm-hmm. euh, ndaw du bëggee réussir euh, day am patience ba pare nangoo am kilifa mm-hmm. waaw nangoo liggéey ba pare jubal loolu ndaw lu ko def yàgg naa leen wax loolu faw nga réussir ku ko def di nga réussir loolu moom maa ko wax. tey bi ba tey nit ñi ñu ngi koy gis ñu ngi gis tee ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy gën a di utiliser nit ñee ngi daw di topp si ginnaaw tritaire bi mais waxu sa sa sa secret nag. waaw secret bi mooy la ma leen doon wax rek nangoo sonn ak jub xam nga loolu ci la bunt yëpp ne te xam nga loolu doo ci nekkee yàlla rek mooy borom jaam ñi nit lu mu def mu réussir rek yàllaa ca teg loxo te lépp yàlla loxo mi ngi koy dugalee ci ki nangoo sonn ak kiy jubal waaw. tey ñu dégg say kàddu Youssou Ndour muy référence ni monument nekk koo xamante ni nit ku làqatu la maanaam doo ko dégg si daray détail tey mu woo la defal la teraanga bu bu tool di tey ban ban yëg-yëg nga am si waaw dafa may neex trop ndax man kenn ku xam ku nekk xam na ni man duma gërëm kenn ci média pour woo ko pour mu may ma xaalis nangam nangam damay wax ni képp ku ñëw ci man damay bëgg nga doon référence ndax duma gërëmantu gërëm damay gërëm ku mën a jàppale askan te man yàgg naa déglu ay mbiram mu ngi jàppale nit ñi ci suuf a suuf te buggul ku ko wax ñooñu laay gërëm du gërëm rek kuy jëw ci man may ma xaalis déedéet damay gërëm kuy jàppale doomu aadama yi di leen dimbal ci suuf te kenn du la yëg te moom wax dëgg fa yàlla dama gëstu ay mbiram ci wàllu woowu yàgg naa toog fu ne ne leen man dama koy xool ndax wax dëgg fa yàlla moom nangu na liggéey moom la def favori xam nga deful dara favori lu dul liggéey looloo tax nag ma woo leen pour ngeen ñëw parce que moom référence la te wax dëgg fa la man dinaa koy xool ci ay qualité waaw loolu la. li mu la defal nii ndax euh, nit ndax kilifa mës na la ko def. déedéet gulet. waaw. kilifa yu bëri si réew mi. gulet nit woo ma kilifa gu toll nii moom woo ma recevoir ma jox ma koom-koom gu toll gu bari nii bari lool. waaw duma wax som nag waaye bari na lool. dafa bëri lii moom mënuñu ko def. maanaam lii citron à bi dama leen ne woon dinaa ko wërale àdduna ndax dañ ma ne woon lan mooy sa ambition ma ne leen mon ambition c'est comment fair pour participer au développement du monde entier léegi nag yàlla dégg wax jooju ba ma tàmbali citron à la menthe bi ñëpp jël ko ñëpp bëgg ko waaw loolu noonu maa ngi ciy sant des na nag yeneen i liggéey loolu pàcc la ci li ma bëgg a motiver jeunes yi pàcc la waa am na yeneen yu des. mu ngi am na solo ñu bàyyi la rek nga tàggoo ak sa dernier waaw maa ngi santaat bu baax sunu papa Youssou Ndour ndax ñun Médina la lañ dëkk moom Médina la dëkk waaw te moom sunu fierté la ñu ngi lay sant bu baax di la nuyu di la wax ni référence nga lii nag ma téye man ma mooy euh, baraada bi nga xam ni moomu laa tàmbalee maag soxna sii ñuy wax Xadi Xadi jàlloo sama goro bu ñuy wax tumbat mbay moo ma ko joxoon ba may tàmbali ci laay liggéey gis nga dama koy liggéey nii ba mu xar ma jent ko def ko souvenir moo indi bagage yii yëpp ak yëpp lii moo ko indi waaw lii laa tàmbalee mooy baraada bi ñu ngi sant tamit ki nga xam ne tamit ci moom la jaar muy Bamba Mbow nit ku baax la yàgguñu xamante waaye nit ku modeste la ku ubbeeku tur bee sell la nag Ahmadou Bamba Ahmadou ku laa biir la yàlla xam na ni man ku ma xam-xam ni du waxantu te duma wax lu ma gëmul waaw ku ma xam rek dégg sama wax loo xam lu ma gëmul ku laa la ku woyof la ku modeste ku simple la ku mën a laamisoo la mat na ndaw ëpp na ndaw tubaarkàlla macha allah. vraiment kàddu yi am na solo mu nekkoon Nalla Trinité moom directeur u Trinité ñu koy kontaanee bu baax a baax mais tamit gis ngeen teraanga bi nga xamante ne ni sunu papa sunu ndijaay suñu xarit suñu grand suñu lépp muy ma Madjiguène Ndour macha allah ñu koy kontaanee bu baax di ko ñaanal jàmmam yàgg ndax ñun média Sénégal bu ñu ibbee entreprise bi c'est juste pour valoriser jeunes yi nga xam ne dañ nekk fii yor seen entreprise donc lii dañ si dañ koy kontaanee ndax bëri na ñu fi yar seen entreprise yu mag yar seen alal yu bari bugguñu benn jeune buy dem ku si jug pour démarrer duñ la jàppale te Youssou Ndour bu defee geste bu rafet bi ñun waa Média Sénégal man DJ Niang maay njëkk si ki koy ñaanal télé bi gën a màgg li mu bëgg moo ko xam yàlla defal ko tontoo Youssou Ndour ñu lay kontaanee bu baax waaye tamit na jàpp si kër gi Média Sénégal Média Sénégal nga xam ni waa Médina ñoo ko taxawal waaw ndeysaan ñoom bokk na ci bokk nañ ci jàpp samay combat man maa doon seen premier sponsor bii ah, waaw waaw te am na lu ma leen ci waxoon am na lu ñu ci waxante woon waaw xam nga mu ngi dem yéen ñu ngi koy gis te day gën a dem soobee yàlla ndax liggéey rek incha allah. ayca mi noonu ba tey moom it Ahmadou Bamba Mbow ñu koy kontaanee bu baax a baax di ko yóbbante pour mu yegg si sunu grand vraiment ne ko mu jàpp si kër gi donc lépp c'est c'est si su ñun la rek day ñëwaat si sunu kaw donc ñuy kontaanee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ayca jërë ngeen jëf.